li may wax damaa ñor. Pape Mamar Gueye mii moom indi. yow yàgg naa sama dëkkër. Hmm. taxaw naa ko lu di la xaar. bu ñëw romb mbëtt yi ñëw romb ma. ay Pape Mamar Gueye gis nga nag kenn gën a baax. fa gaa yi daw jëm. nga daw jëm. man a maa nag du tax ñu naan man a lii. waaye nag Pape Mamar mii mooy waaja. bëgg buur nag buur bëgg laa gën a wóor. te Pape Mamar Gueye mii fii daw jëm. follaaku rek am nga follaaku ndax Diop si nii ku ñu koy jàkkee nga xam ne kat Tiwaawan bii mooy borom kon Pape Mamar Gaye fa nga daw foofu la fa nga jëm foofu la fa nga waaxu foofu la fa nga wax foofu la foofee nga xool foofu la Pape Mamar Gaye xoolal li ma lay wax léegi képp la bu bëri de ñaari ma dum laa lay wax yaa am fit yaa am fit yaa am fit yow mii Thank you.